muy jumaa joo xam ne jumaa Ndakaaru la muy jumaa cosaan xam nga jumaa joo xam ne bu ñu la nee 1914 la xam ne jumaa cosaan la jumaa joo xam ne alaji alaji Malick si moo ko teg première pierre bi jumaa cosaan la benn jumaa moo ko fi jëkk muy bi nekk bi Blanchot boobu 1906 la bii 1914 amuñu loo xam ne moo gën a rëy jumaa ji moo tax képp ku laal laal jumaa ji da ngay gis automatiquement ñëpp dañu jóg ku nekk da nga am looy sentir tëj bi nag yàggoon na mais nag li ko waroon ñëpp borom xam-xam yëpp wax nañ ko borom diine yi wax nañ ci borom médecine bi wax nañ ci ba léegi convaincre nañ ñëpp ñu ngi sant ñu ngi sant yàlla nag parce que balaa ngay tal dara da ngay am wér-gu-yaram loolu moo doon sababu tëj jumaa ji jumaa ji nag képp ku ci def def def sa wërsëg wala sa sa ñax wala sa doole yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla moo moo lay moo lay fay ah, ah damaa dégg sama sama sëriñ di wax danaa naa dégg sama sëriñ di wax jaa jaajëf baat bu gàtt la mais ku deful dara doo ko dégg jaajëf baat bu gàtt la mais ku deful dara doo ko dégg fii nag ñun suñu askan fii jumaa ji nekk mooy képp ku yëg képp ku ñuy yëg jàppale ñu dañ leen jaa jaajëf parce que yombul parce que am na ñoo xam ne mën nañ ko mais defuñu ko ñi ko def nag wax leen jaajëf wàññiwul dara. parce que depuis ba euh, presque euh, am na depuis pas mal de temps dañoo tëjoon tous les tous les mosquées ci kaw loolu ba ñu jotee ndigal ne dañu war a ibbi jàkka yi initiative yi nag euh, ci kilifay penc yi si ñoom la juge ñoom tamit te ñoom ñu nekk ay mag yoo xamante ne maanaam du ñu réeroog seen i ndaw.

tey jii nii tey jii nii man dama jàpp na ne maanaam Médina wërngal këpp kenn waratul mën a am jafe-jafe ci côté liggéey boo xamante ne maanaam tey jii nii euh, dafay soxla mbooloo parce que collectif bi dañoo taxawee taxawaayu képp kuy Médinois ñu taxaw pour jàppale la te ci kaw loolu moo tax ñun tamit bañ ñu si interpellé amuñu si benn xaar ma yàlla amuñu si benn xaar ma yàlla parce que dañu xam na ne maanaam collective bi taxawaayam foo ko natt rek weesu na ko ñu ngi si église yi ñu ngi maanaam ñoo ngi partout boo limee sax dangay ngay juum mais ñu ngi partout ñu ngi si distribution masque yi ñu ngi si depuis depuis si moment pandémie bi da ngay gis ne ne maanaam sensibilisation bi collectif bee ko doon def ba tax na tey jii na grace à collectif yi moo tax ba ñu interpellé ba ci lii maanaam amuñu si benn benn benn benn njàqare. incha allahu rabbi fas nañ. fas nañ taxaw ci liggéeyu jumaa ji avec la manière. donte ne ne lu ñuy def ni c'est apolitique non mosuñu ci banam tey jii daf mané pour man me présenter wu ci kaw présentation bobu tey jii nii man suma amé ay yenn initiative yi ba diko jël c'est grâce à la CATB. CATB motax man may jël yenn initiative yi mais tey jii nii ni nii liggéeyu ñëpp la affaire négu yalla la si manam dañ suy jël politique bi ñu écarté ko tek ko feulé mais si euh, présentation bi c'est la présenté en tant que euh, coordonnateur de la CATB au niveau de Thiering.